لكم dëkk dem suñu mbokki ujaaj yi ña nga ca Arafat di tàllal loxo yàlla di mottali seen farata yàlla ko yàlla nangu nu it bis bii la ñu yàlla jagleel ñu nuróole ko ak moom muy firndeel nag ni bis yi yowmal xiyaam yooyu dañoo ñëw pour mandarga moo tax jartu yàkkamti nag ñu teeli ko bu baax gàttal ba waaye duñ ko guddal ba muy loraange. ñu jublu ci tubaay ci bi xel. te xam ne képp ku fi jub si. sa reen di balaa moo wér. sa fekk nag sa imaam reen di ba pare. nga door reen di kon na mën daa teelu. ñaari rakka la. ñaari rakka bu njëkk bi. juróom-ñaari kàbbar la. bu jot ak xewal juróom benni kabar la bu ca bokkee. boo ko ci boole juróom lay doon. bisimilah. allahu akbar.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 انہ اکبر انہ اکبر امنا اکبر ام اکبر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 lek ken du lekk naan kàbbar loolu ñuy nekkee ñetti fanu tëbaski yépp lii la lekk ak ak amul war amul lenen da ngay di naan di kàbbar moo tax mu ne ayyaamu aklin wa shurbin wa takbir kàbbar yooyu ñuy kàbbar nag mu ngi tàmbalee ci tisbaaru tey jëm ba ci suba ñeenteelu fan bi danañ koy ci yi léeg nga dégg ñu ne bu leen fàtte kàbbar yi waaye kàbbar yi du këpp këpp ak ne allahu akbar allahu akbar jullit bu nekk war na ko mën te yàggul dangay wax allah ci ay baat lañ koy wax allahu akbar benn allahu akbar nga ne ñaar séparé ko laa ilaha illa allah waxaat allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd mot na jullit bu nekk war na ko mën a tàmm ba mën ko loolu jafewut te jullit du bëgg yomb ni koy xale yi di waxee te warta mën a yomb ci diineem mbokk jullit yi li ñuy jàngate ci tabaski ci atum ren bi moo di at bu nekk mën nañ cee jàngat waaye ci ñaar rek diggante réponse question ak réponse ci bi nga xam ne dox na diggante yonti yàlla Ibrahim ak doomam ja Ismaayil mu di mag ak ndaw la te ne ko gis naa ci gént bi ne maa ngi lay rendi fanzur maza tara ne na ko loo gis lañ mooy ci sa xalaat waaye doom ji lim ko toltu moo di fafaal ma tuumar jëfee lañ la digal mooy wane ni ànd mu munta jag mucc ci àdduna lu dul ñaar yi bokk ko mag ak ndaw waaye mag ak ndaw buñ ci bokkee na mag mi wekk ndaw li bàyyi ko muy exprimer di joxe xalaatam di def lépp bu ñu demee ba ci fin ba ma mag mi na laaye biir ndaw li tegtal ko ci yoon waaye ndaw li it na wormaal mag mi déglu ko ànd ak moom seen lépp jag waaye dara munta jag te lu àndul ak mission bu réussir dafa fekk ne mag bokk ca yonti yàlla Moussa alayhi salaam li tax mu réussir ci Firawun moo di yàlla de ko booleeg mag mu di Haaruun magam ja ba ci làmb ji mbër mu am technique am doole am entraînement bu doy waaye encadrement encadrement am amul mag carrière du yàgg foo gis rek mag da cay bokk mag baax na cib gox baax na ci réew baax na cib kër moo tax ba mag xale yu ndaw li ñu xewal léegi dootu mën a am xale bi Ismaïl lan la tontu baay bi ne ko lii awma ci xalaat parce que lii dafa jóge ci instance suprême wala décret divin la lii yow dañ koo war a jëfe comme sa boroom moo la digal ñun amuñ ci commentaire amuñ ci leneen noonu la ndaw di doxaleeg mag benn xikaaya ngi nii bu koy firndeel ndaw loo xam ni dafa donn ci baayam alal ne day wuti xam-xam génn ba ca jub benn dëkk fekk fa benn mag mag mi di jëmbat garabu tàndarma wala kokorom te xam nañ ni garabu tàndarma balaa nga ko jëriñoo ay dizaine des années la te mag mi weesu na juróom-ñetti fukki at quatre ans jëm ci kaw mu ne ko bàyyi wala maam njëriñ loo fekkee lii ngay jëmbat nii xamal ne doo ko jëriñoo lu tax nga koy jëmbat di di yàq sa temps mun ngaa jël sa kurus wala nga jël sa sajaare dem jaamu ji yàlla mu ne ko déet maa ngi jaamu yàlla mu ne ko lu ngay jaamu yàlla mu ne xarasu fa akalna wa nahnu naxris fa yaakulun tàndarma jiñ doon lekke ba tollu ni dañ ko fe fekkon dafa amoon ñu jëmbatoon ñu koy lekk ñu nit war nañu delloon mbattu ca ndala jëmbataat pour génération future ñoomit it bu ñu ñëwee am liñ ca fekk motax mak fi yàlla waxé ne wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin na nga jaamu sa borom ba de dikkel la yemul ci yemul ci julli ak kooraki ak déedéet mooy di ci def lu baax moo tax sunu mag ñu baax ñi kenn taayiwu ci bés bu nekk ñu ngi dem mag du retraite ci lu baax day dem rek ba dee dikkal ko loolu la ñu sant mag waaye bi mu waxee mag bi ci loolo ndaw li dégg loolu ne ah bàyyi day jox nga ma xam-xam daal di làmb gafa ga dindi junni alfu dirham ci jamono boobu ne ko bàyyi xam-xam nga ma jox am góor gi daal di téene ah garab gi de tóor tóor na léegi def ci poos ñu yend waxtaan bay waaj a tàqali ko mu làmbaat poosam dindiwaat beneen junni jox ko ba góor gi góor gi ne góob naa garab gi maa jëmbat tey mu meññ tey ma góob tey lii mooy exception booba lii li koy waral lépp moo di déglu mag ànd ak mag ànd ceeg mag ak kii ñu bañ a siisante ci lañuy ànd ngir àdduna ba jag waaye li xew léegi moo di alternance générationnelle na fi mag ñi jóg ñu toog loolu du jagal réew na fi mag jóg kenn du gi ba ci kër yi ba ci jàkka yi nañu puus mag ñi ñu xajal ñu déedéet bu ñu demee du ñu sori ndaw il faut ñu ànd ak mag ñi déglu leen mag ñi tette leen boo fi mag ñi àggoon ñu doog a mën a continuer mission ba su ko defee ñu ci ñaax ndaw ñëpp buñ ci jógee ñu ngi jublu ci nawet yal nañu yàlla may nawet bu barkeel may ñu nawet bu am solo nawet bu boo xam ne àndul ak loraange buñ ci jóge it dañoo dëgmal ci loo xam ne ñépp a ko bokk te ñépp tiit ci mu di ñu ngi jëm ci élection yi yaakaar naa ni tey la war a tàmbali waaye ndaw war na cee mën a gis boppam li muy gisee boppam moo di ndaw du yàq lañ ko defaral yàlla dafa wax ne wala tufsidu fil ardi baada islahiha nee na lépp defaral naa leen ko ba mu jag ba mu mor waaye bu leen ko yàqatee seen bopp yàlla nee na kenn man jógumu kir yàq waaye bu kenn yàqal nit du yàqal la mu moom ndaw du taxaw taxawaayu yàq waaye day taxaw taxawaayu defar bu kenn yàqal sa bopp waaye am na loo rawatina nag ndaw apix yi jàkk ji ñëpp ci bokk yam ku nekk na ci am taxawaay ngir ëllëg yàlla boole ñu yiw bi yëpp ku ci am yéene bu baax yal na ko yàlla defal moo tax ñu ci sant di nuyu di ziyaara sunu baay bàyyi Ali Fall yal na yàlla yàggal taxawaayam li ma waxoon ci mag ñi léegi rek mag du retraité ci lu baax moo tax bis bu nekk ñoom ñu ngi taxaw ci lu baax boo jëlaatee exemple sunu Baye Ismaïla Touré weer dee mu nga ca retraité ya munoon naa toog këram waaye jaam loolu jaamu yàlla la moo tax ndaw du taay mag du taay yi def lu baax mag du taay di def lu baax moo taxi ndaw ñi war a ànd ak mag ñi fonk mag ñi mag bot naa bàyyi cim réew mag mën naa bàyyi ci kër gis nga mag bis bu jógee ci kër xéewal ga tóoro sama mbokk soose yi nee nañ ni yiroo ba boyta kunool ka janja nee nañu garab gu mag bu daanoo picc yi ca daan kii yëpp dañuy tasaaroo gis nga mag bu jógee ca kër worma bi ñu wormaaloon waa kër ga day daal di dañ wàññeeku yekk yu neex ya daan ñëw day daal dootul ñëwati moo tax mag baax na cib kër baax na cib gox danañ ko rusee gox danañ ko rusee kër danañ ko rusee ci fépp nañu fonk sunu mag ñi fonk sunu avenir fonk sunuy métier ñu ngi nuyu di félicité di encouragé waat secrétaire général Ousmane Ndiaye Baye Ale ak ñiñ ci àndal ci bureau bi wuutu ca ñëpp ñoom ñooy taxaw di saytu wuutu ci gox bi yëpp di organise jàkka ji ci manière bi nga xam ne moom la gën a rafet ñu ngi nuyu di fàttalikuwaat bala ñoo sori ñañu doon fàttaliku di sunuy way dawlu du ñàkk nag ñu tudd ci ña nga xam ne ñooñu rek ñoo yóbbaale ñëpp mënuñoo tudd ñëpp waaye ñañ daan tudd te ndox du bàyyi yoonam moo di sunu baay Bachiru Touré yal na yàlla yeesal yërmandeem ci ñoom ñoo amoon taxawaay la sunu baay Omar Kanji sunu baay góor gi Jum sunu wóllëre sunu baay sunu xarit Jibril caare soxna Tabara Seen ak soxna Koddu Pen ñii ñoo ñi nga xam ne wuutu yeneen woy dawlu julli ñëpp ñi fi dawlu woon ci APEX yal na yàlla yeesal yërmandeem ci ñoom ci bés ni tey xaare leen aljanna seen njaboot yàlla teg ci loxo naka noonu ñu ngi nuyu di ñaanal aafiya ñi nga xam ne way tawat yi daan fi teew bokk na ci loolu sunu baay ma Mamadou Ba